ñu yëkkati suñu kàddu ki turu sëriñ kokki alxaaji Mouhamadou Xabaan Diop ak ki turu njabootu Maxtaar Ndumbe gépp ak ki turu waa kokki di wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu madame la ministre docteur Fatou Diané ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants ñi ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay waaye di la yónnee nuyoo ci son excellence le président de la république ak le première ministre Amadou Ba ak l' ensemble du gouvernement. di rafetlu bu baax a baax sa teewaay fii ci jataay bu màgg bii nga xam ne teewoon nga fi nëga ni daaw tey nga ñëw teewaat teewaay bu rafet yow ak sa délégation ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di beral nuyoo madame le gouverneur de la région de Louga di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam. waaye di ko ñaanal ci fonction bees bi ñu ko nommé gouverneur de la région de Louga mu réussir ci am ci réussite bu kenn mësul am te it am nañ ci yaakaar ndax ni mu débuté def na gouvernance Louga lu fi kenn mësul def en tant que femme ñëw réfectionné waat gouvernement bépp def réfectionné waat gouvernance bi defaraat ko ba mu mel nu rafet kon loolu suñu sag la ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee région de Louga kon madame le gouverneur félicitations ñu ngi nuyu monsieur préfet du département di beral nuyoo nag monsieur le sous préfet de l' arrondissement de Koki di ko sant ki taxawaayam ci événement bii nga xam ne tey bu nu amee réussite bi lépp moom moo ko liggéey jox ko préfet jox ko gouverneur mu jàlle ci kaw ba mu am réussite bi kon monsieur le préfet ñu ngi lay sant di la gërëm di beral nuyoo monsieur le président conseil départemental waaye di beral nuyoo sunu frère sunu xarit alhaaji Sele Maysa Ndiaye maire de la commune de Koki ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu délégation yi fi teew yépp maire yi autorité administrative yi chef de village yi ñëpp ñu ngi leen nuyu waaye di beral nuyoo sunu xarit le préfet du département de Tivaouane Alhaji ma Guèye mi ngi fii toog en tant que fils de Koki tey moom jataay bi ñëw teew fii monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu tey nag sunu kàddu dañ koy gàttal ndax wax nañ ne temps bi dafa xat di beral nuyoo ki ñu fi dajale di alxaaji Maxtaar Naarloo directeur de l'institut islamique sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ki turu sëriñ kokki di la ziyaar di la sagoo yow day yaay sagub lislaam waaye Sénégal gi yaa ko sagal ndax liggéey bu rëy bii nga xam ne sunu maam Ahmed Sakhir Lo defoon na ko fi liggéey bi tey fu mu toll ginnaaw yàlla yow la kon tey Sénégal bu ñu amoon tey benn kilifa bu ñu war a sant wala ku ñu war a jox ay raaye ci wàllu daara Serigne Makhtar Nalum moo ko mérité tey jaadu woon na ci réew mi ñu jël li ci gën a màgg liñ gën a fonk ci réew mi ñu jël ko jox ko ko raaye seriñ Maxtaar naarloo jox ko ko ne ko tey ba réew mépp gis ko ñu jox ko ko distinction boobu ne sagale ko ko ndax alxuraan ñun ñëpp moo ñuy sàmm bu ñu bàyyi woon alxuraan tey duñ fii ñu toog duñ fi toog kon alxuraan mooy protection Sénégal mooy protection àdduna bépp tey li tax ñu mën a am loolu tey ñu ngi ciy sant sëriñ Maxtaar naarloo mii. di jëmm joo xamante daf ñu sagal ñun waa kokki ndax institut bii mu yor lépp lu mu fiy jëf mi ngi koy jëf ci biir kokki biir kokki bépp ndaw bu fi nekk wala bépp kilifa gu fi nekk ku sa bët xonq bala ngaa xalaat kenn sëriñ maxtaan naa loo ngay dem xalaat dem gis ko te boo ko gisee sa aaja faju kon jëmm ju mel nii yor 5400 étudiants di leen jox añ di leen jox reer di leen jox ndékki kon ñun ñi fi toog kenn ku ne fi nga toog war nga wax ci solo làmmiñ beral ko sëriñ Maxtaar na loolu yàlla na fi yàgg te wér ndax ñi fi toog di ay junni nit kenn ku ne bu waxee loolu suñu borom mën na barkeel làmmiñam ndax jëmm ji dafa war a yàgg dafa war a wér dafa war a mucc ndax lii mu yor suñu sag la ñun ñëpp rawatina ñun waa kokki nga xam ne tey buñ nee alxuraan ne daaree kokki ne kokki ndax lii suñu maam Maxtaar Ndumbe moo sancoon dëkk bi ci alxuraan mais lépp na tey bu amee tey ba mu dem ba toll fii dañ koy sant sunu maam Ahmed Sakhir loo kon ñun. ñoo war a toog sant ko. di beral nuyoo nag sunu xarit sunu sëriñ sëriñ Bassirou Mbacke Xaadim Awa Ba mu ngi nii toog di jëmm joo xamante ni kenn la ci daara ji di jëf ci daara ji loo xamante ni lu nëbb ak lu feeñ sànq rek maa ngi wax ne dañuy sant sunu ñaari xarit alxaaji Abdoulaye Dia alxaaji Moustapha Ndiaye. heure bii daaw ñëw nañ fi ñu dem xooli restaurant bee ñu tabax sëriñ Abdoulaye Dia ak sëriñ Moustapha nañ xool lan mooy war a liggéey bi ki ndigalu sëriñ Bas mu jox sëriñ Bas mii lim boo xamante ni lu ko war a àggale di cent cinquante millions ak cent trente et un millions sëriñ Bas mi lañ ko tekki loxoom indi ko ci daara ji. dafa baax kon ñi fi toog xam ne jëm ji daara ji rek lay nooyee moo ko tax a xëy moo ko tax di gont di beral nuyoo suñu xarit alxaaji sëriñ Mbuub mais jëmm ji ku ñu war a sant la ku ñu war a gërëm la ci daara ji te it ñu ngi koy def ndax xam na ne li ñu fi def lépp moom moo ko moom sànq wax na ne ndekkil daara ji lopp fukki at moo ko yore te du ci dent gannaaw ak leneen ak leneen loolu la valable ak suñu xarit alhaji as ndaw mii créé wa jaahidu di kenn ki daara ji di def jëf yoo xamante ni bii lenn rek exemple doy na ci résidence bi sama ginnaaw ku ne gis na ko mu taaru lool dërëmu kenn demu ci alhaaji as ndaw mi moo ko defar jox ko daara ji gratuitement kon kii ku ñu sagoo la ku ñu war a ñaanal la. jërëjëf euh, sëñ Cheikh waaye bisimilah. <laughs> comme ñi ngi may dagg te bëgguma indiscipliné bu ñu ma daggee damay taxaw kon docteur maa ngi lay sant bu baax di gërëm yamale foofu sama kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf sëñ Cheikh.